di leen ñaanal yàlla tawfiix ak njéggal euh, sunu borom subhaanahu wa di ko dagaani tamit ci xéewalam yi euh, mu yokk ñu ay xéewal te musal ñu ci lépp luy këf diine ak lu koy yàq sàmm ñu aar ñu euh, ci pexey iblis ba ñu mën a taseeg ngërëmam ci dunduk àdduna ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp tey nag ñu ñëw ak yéen ci yeggale waxtaan wuñ doon waxtaan ci xam-xam euh, ci waxtaan yu weesu ñu ngi doon waxtaan ci yoonu sàkku xam-xam ñu waxtaane woon juróom benni poñ yoo xam ne dañ koo tënk lool ci nu nit ki bu jubloo ci sàkku xam-xam lim war a ngànnaayoo ci ay jikko walla ci ay jëf wala ci ay melo yoo xam ne dana ko dimbali ci am xam-xam ñu tuddoon ci dëggu ak sellal ci li ngay sàkku ngir jëm yàlla tax ak tamit dimbali ci sa bopp waaye dimbali ci jaamu yàlla yi ñu leeraloon ko it tuuti dugg ci ay ay alquran ak ci wax yi yonent bi sallallahu alayhi ak mag ñi ñaareel bi it mooy sàkku ci ndimbal ci yàlla ndax lépp lu doomu aadama di def bu ci ndimbalul sunu borom amee rek eh, amul rek loole du antu loolu it waxoon nañ ko ñetteel bi mooy nit ki def effort xam ne àdduna ñëwuñu fi ngir lépp noonu nekk yomb noonu rek waaye lu baax du yomb kon nit ki faw mu am pastéef eh, ak góor góor lu baax ci li muy wut rawatina nag xam-xam ñeenteelu point bi moo doon mu jëfe ko ndax nit lu muy sàkk noonu rek euh, ci théorie comme li ñuy wax te àndul ak jëfe muy xam-xam boo xam ne ci bind rek lay yam ñu lay wax ngay dégg boo ko jëfewut dana jafe loola sax ci yow wala nga mën koo jëfandikoo bu baax kon xam-xam du objectif waaye daanaka ay moyens la yu ñuy jëfandikoo ngir yegg ci dara kon jëfe gi da ci am solo boobu moo doon ñeenteel bi juróomeel bi ñu waxoon ne faw muy jëfandikoo xelam yi nga xam ne moom la ko yàlla jox ci ay bagages mu di ko jëfandikoo ndax képp ku bëgg a jàng faw nga jëfandikoo dégg wala gis yooyu ay éléments yu am solo la ci jël xam-xam waaye jëfandikoo sa xelit ci ana di analyser di xalaat di seetlu euh, loolu ci te ñëw na ci alxuraan lu bare bare bare lu doon ci ñeenti misaal yoo xam ne ay méthode la yoo xam ne yàlla indi na ko ci alxuraan di ko wax nit ñi muy atadabbur ak tafakkur ak nazar ak ruya ñu indi ko ci siira yu bare bare bare yu bokkul indi ko ci contexte yu bare bare bare yu bokkul moo tax ñu junjoon ci ne euh, nit ki warul lépp lu mu gis rek rek jëlee ko noonu daa war a gaaral ko xelam ndax xel mi loolu lay jariñ moo tax du lépp lu ñuy gis ñu bind ko ci kayit rek dañ koo war a jël noonu directement waaye càmbar ko xool ko ba noppi ndax dëppoo na ak alxuraan ak sunna ndax dëppoo na ak xel tamit ndax lu alxuraan wax rek day fekk mu dëppoo ak xel ndax ki ko indi kooku moo bind doomu aadama te lu jox du jox doomu aadama mukk loo xamante ne nii day am contradiction euh, ak xelam kon loolu lu lu am solo la beneen bi nga xam ni moo ci mujjoon muy kuy sàkku xam-xam faaw nga ubbeeku nga nekk nit ku ubbeeku koo xam ne da nga nangu euh, wuute waaye képp koo xam ne dangay farfarloo walla nga tëju lool yamale sa Euh, sàkku xam-xam ci benn barab dong wala ci ñenn dong wala nga amu ko rëy ci jël ci ñeneen euh, dana jafe nga nga yegg ci ci am xam-xam loolu waxoon nañ ko it loolu daal lañ tënkoon ci waxtaan wi weesu euh, li tax ma koy répété waat it mooy koo xam ne jotu ci jotu ci woon ngir boole ko ak waxtaan wii di ñëw nga xam ne ñoo ànd tey nag ñu bëgg a waxtaane it beneen point ci xam-xam bu am solo mooy ndax ku wax ci yoonu xam-xam ngir sàkk ko ak doonte xam nañ ko sax waaye fàttaleel moom lay doon rek ndax li ñu fi wax lépp du lu bees waaye comme dañoo baaxoo di fàtte ñun doomu aadama léegi léeg jar na di fàttali te fàttali ak répété dafa baax ndax méthode la ci jàng boo gisee alxuraan am na xisas yu bari yoo xam ne daf koy wax di ko waxaat ci ay saar yu baree bari loolu ki amut xel mën naa wax ne wala dana xalaat ne ah lu tax alxuraan di def répété yi yëpp waaye répété day tax li ñuy wax sax ci sa ci sa xel day tax doo ko gaaw a fàtte ba ci jàng sax pour nga jàpp li ngay jàng bu baax a baax faaw nga répété ko ay yoon yooni yooni yoon ba mu mën a sax ci xel mi ndax doomu aadama xelam noonu la du tëb rek jàpp dara waaye boo ko dëkkalee di ko ko wax euh, bu yàggee day daal sax ci xel mi euh, yoor gi denc ko bu ko defee mu nekk loo xam ne dafay nekk ci moom euh, point bi ñuy waxtaane nag mooy dayob xam ak njariñam ci àdduna ak alaaxira ndax xam mbir dayo ba nam toll ak njariñ la dana tax nit ki mën caa góorgóorlu bu baax bu koy sàkku dañuy tegtaloo ci alxuraan rek lépp duñ ko mën a wax ndax alxuraan li mu indi ci njariñu xam-xam lépp lépp di soññ nit ñi ñu jëm ci xam-xam bari na bari goo xam ne kenn mënu koo matal waaye danañ ci seppi eh, ay aaya yoo xam ne ay saari alxuraan wala ay ay ay ay eh, tegtal yoo xamante ni ci alxuraan lañ koy jële Euh, bu ko defee leeral ko loolu day wane euh, importance bi nga xam ne xam-xam am na ko bu njëkk bi mooy li ñuy def nii nag wax dëgg yàlla tadabbur la mu ñu ko jëlee ci settantal rek alxuraan euh, te li ma waxoon ca waxtaan wee dañoo war léeg-léeg di góorgóorlu nit ku nekk bu fekkee ne ab jàngkat la boo xam ne xam na mën naa jële ci alxuraan direct mu dem ci alxuraan di fa jëlee direct ndax fa la borom xam-xam yëpp di jëlee bu fekkee ne euh, xam-xamam mayu ko loolu mu seet ci li borom xam-xamam yi bind bu ko defee muy jël ca loola waaye toxal rek dafa dafa nekkut loo xam ne moom mooy joxe xam-xam donte nag ci tàmbali bi la bokk waaye nit ki war naa góor góoru léeg-léeg di am ak déggug boppam di am li ñu tuddee istinbaat mooy di jàng dara di ca man di ca génne dara loolu lu am solo la jàng nañ ci alxuraan ci suratul baqara fi yàlla di waxee malaake yi ne leen dafa bëgg a bind am mbindeef moo xam ne da koy wàcc ci suuf def ko fa xalifa mu nekkal ko fa malaake yi dañ koo tontu ne ko ah ndax danga fay yóbbu koo xam ne day yàq ak di tuur deret te ñun ñu nekk fi di la sàbbaal di la jaamu malaaka yi seen tontu dafa mel ni dañuy wax yàlla ne ko ah ñun ñi nga xam ne duñ la moy ñun ñi nga xam ne ci sàbbaal la lañ dëkk ci jaamu la lañ dëkk bu fekkee ne am na keneen ko bu fekkee am na koo war a yóbbu xanaa boobaa ñu ñu mu nekkal la fa daa mel ni kon xanaa ñun la ci maanaam ci waxin ñun ñëw ci gën a jekk lu tax ngay yóbbu koo xam ne bu fa bu fa demee nangam ak nangam la fay def masala bi sax gudd na gudd boo xam ne nu malaaka yi xamee ne ne kii di ñëw nangam ak nangam la fay def loolu du du waxtaan wi waaye shaahid bi tegtal bi rek moom lay jël ci ci ci aaya boobu wa id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabbixu bi xamdik wa nuxaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamuuna shaahid bi li ma ci soxla mooy wa allama adama al asmaa kullaha summa caradahum ala almalaaika fa qaala ambi'uuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin loolu eh, yàlla dafa mel nii dafa wax malaake yi ne leen kii may yóbbu di daal di leen teg ci benn maw mawqif boo xam ne muxrij la maanaam wal leen na leen rek tasbiix ak ibaada ak lum kawe kawe kawe kawe xam-xama ko gën a kawe daal di daal di daal di daal di daal di indi xam-xam teg wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika yàlla xamal aadama xam boo xam ne ci man ni ma ko déggee ci aaya bi mooy malaaka yi xamuñ ko mu nekk taxaddi nga léegi mel ni dañuy teg tasbiix ak ibaada teg xam-xam te yéen ñëpp xam ngeen ne borom xam-xam yi nee nañ balaa ngay jaamu yàlla day fekk ne da ngay xam day fekk ne da nga da ngay da xam kon foofu day wane sharaful ilm mooy dayob xam-xam ni mu toll ndax yàlla bu mu bindee aadama lam njëkk a def bi ko malaaka yi xawee xeeb tuuti xamuñu lu suñ borom nar waaye ñu jëkkantalu defe ne daal kuy tas beex doo ko mooy mukk di sàbbal yàlla di ko kañ di ko di ko di ko comme ni ñu ko xamee ak loolu li muy baax baax baax baax baax ñoom comme am nañ dara jooju toll noonu ñoom ñoo ñoom ñoo war a nekk ci kaw ñoo war a nekk ci kaw suuf yàlla ni leen nag am na beneen titre leneen lu gën a kawe loolu te lim nar dëgg-dëgg xamuñu ko mu daat leen indil taxaddi challenge ne leen nag kii may indi dama ko jox loo xam ne xëy na nekkul ci yéen daal di indi xam-xam teg waxu fa leneen wa allama adama al asma kullaha summa aradahum ala al te loolu kon shahid bi rek ci ni ma ko déggee wax dëgg yàlla mooy sharaful ilm moo foofu la malaaka yi la la la doomu aadama yi wuutee ak malaaka yi lii may wax nag tekkiwul ne a ah, doomu aadama moo gën malaaka waaye nag am na fu muy toll foo xam ne ndax niñ leen bindee ñoom ñaar bokkul kii dañ koo bind mu mën a moy am choix def lu baax am choix def lu bon kon mën na am nu muy def noo xam ne dara jaam mën naa gën a kawe darajay darajay malaayika su fekkee ne mën naa la nga xam ne moom la war a def wala moom la war a siq ak boroomam siq na ko ñee nag amuñu choix dañ leen a bind bind boo xamante ni laa yaasuna allah ma amarahum wa yafaaluuna maa yumaruun kon ñooñu mënuñoo moy te ku mënta mooy moom wax dëgg yàlla liñ la bind ci loolu rek ci ngay mën a nekk ak koo xamante ne ni mën ngaa def lu bon mën a def lu baax ñooñee kon yamuñu yemuñu daraja mënuñu leen a tàqale waaye fii shahid bi li ma fi soxla mooy que wa allama adama al asmaa kullaha ndax dafa ñëw ci mawxif boo xam ne euh, mawxifu taxaddi la beneen bi mooy ñun ñëpp xam nañ ne ci yàlla wax naa ci alxuraan ku toll ni yàlla bu demee ba nguuram gi mu di ko seedeloo mbindeefam yi daal ne moom ci sut borom seede na nguuram gi annahu laa ilaha illa huwa wal malaika seedaloo it malaaka yi wa ulul ilmi la ci teg muy borom xam-xam yi loolu it dafa loolu day wane cërub xam-xam ci boppam ak borom xam-xam yi mooy sunu borom bi muy seedalee nguuram gi da leen cee boole kon loolu cër gënu ko mag ndax nguuru sunu borom gi nu mu toll bu koy seedaloo mu tànn ay seede ñu bokk ca Euh, loolu kon euh, dayo la bu mag ci ci ci xam-xam euh, beneen bi mooy yàlla fi muy waxee ci turam wu sell bi di wax ne amul benn buur bu dul moom da caa jiital faalam mooy na nga xam xamal ne amul benn buur bu dul yàlla faalam annahu laa ilaa illallah wastaghfir li zanbika loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko wax ci surut Ali Imran astaghfirullah ala kulli xaal faalam mooy xamal te xam kon bu ñuy wax xamal kon ci ci xam-xam la ñuy wax mooy ku kon baatub laa ilaha illallah lu ñuy xam la nooy jaamoo yàlla lu ñuy xam la te xam faaw mu jaar ci ci jàng kon loolu day wone dayo bi nga xam ne xam-xam am na ko beneen bi mooy yàlla wax na de ñi nga xam ne ñoo ko ragal dëgg mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama kon te ragal yàlla euh, xam ko euh, mooy yoon wi ba man koo jaamu te ragal bi nag liñ ci jublu euh, mooy worma gi ndax du ragal goo xam ne comme niñ koy déggee ci baatub négatif déedéet yàlla ku ko xam dëgg dëgg dëgg euh, dara naam xasiya dara jala ci ñun nuñ koy firee ragal waaye lam wundu dëgg dëgg dëgg defe naa ni ëpp na ragal ay mbugalam ak yooyu ndax nit dana toll foo xam ne day jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne ci cofeel la koy teg ci mbëggeel te loolu moom mooy euh, mooy ibadatu xaasatul xawaas mooy nit ki dana toll foo xam ne buy jaamu yàlla da koy jaamu tanziman wa ijlaalan waaye dootu ko jaamu xawfan min azabihi am na ñoo xam ne dañuy jaamu imtisaalan lil amr am na ñoo xam ne dañuy jaamu xawfan min al azab wa tamaan fi duxulil janna waaye martaba bi gën a kawe nag mooy mooy mooy ibadatullahi tanziman wa ijlaalan ñetti niveau yooyu dañoo dañoo bokkul ci ci ci jaam yàlla yi lu mat a xàmmee la nag yàlla nu yàlla may daraja yu ñu mën a yegg foofu waaye donte xam naa ne jaf lu jafe-jafe la mooy yegg ci marta boobu ma leen wax mooy nit ki di jaamu yàlla ba yegg ci daraja joo xamante ne nii weesu na al rek di imti imtisaalul awaamir wacc naa bu yi mooy donte jaamu yàlla gu nekk mënta ñàkk loolu ndax loolu moom mooy moom mooy moom mooy tàmbali bi ngay topp ndigali suñu borom di bàyyi ay tereem ngir lim la ko digal am na ci ñoo xam mën ngaa yegg it ci dem ba ragal ko ragal mbugal mi waaye bëgg tamit dugg dugg àjjana way kaana yadduuna na raxaban wa raxaban loolu lépp lu lu am la waaye ñi sunu borom dimbali dëgg bañ yegg ci alxadratul ilahiya ba gis euh, gis taaru sunu borom bi subhanahu wa taala xaqiqatul jamal wal jalal ñooñu kon dañuy yegg ci niveau boo xam ne bu ñuy jaamu yàlla yi man wa ijaaran moom lay doon màggal ko la ak ak ak ak ak ak ak ak ak yëkkati ko ngir gis dara jaam suñu borom lim leen xamal tuuti ci dara jaam nga xamante ni nii bànneex bañ ca yëg bu boobaa dootuñu ragal sawara waaye dootuñu tamit bëgg àjjana ndax seey nañ ci suñu borom ba noppi te loolu ko ko ko waxuma ne yegg nañ ci de wala kulli xaal ndax jafe na lool waaye lu am la lu nu gëm la it te jullit bu nekk war naa ñaan yàlla ci yegg ci ci niveau boobu ci xalawatul imaan ba mën a daj bànneex boobu kon loolu te ngir nit mën a yegg foofu faaw mu jaar ci ci buntu xam-xam kon daal loolu lu am solo la beneen beneen beneen bi liy wane dayob xam-xam ci alxuraan ba léegi ndax ba léegi ci alxuraan la laa nekk mooy rifa yarfau llahu allazina amanu wal minkum wallazina utul ilma darajat mooy yëkkati gu borom subhanahu wa taala di yëkkati borom xam-xam yi fii ci àdduna ak yowmal xiyaam te loolu ñëpp ñëpp xam nañu ko bu ñu ko fi doon euh, leeral euh, di ko di ko dafay dafay dafay dafay gën a gudd waaye xam-xam moom dafay yëkkati nit euh, day dafay yëkkati nit ci kaw jox ko daraja ndax njiit dañuy sàkku ci moom xam-xam te njiit rifan la daraja la sharaf la te yowmal xiyaam it noonu lay demee sun borom it wax na ci hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ndax ñi xam ak ñi xamul danañ yem loolu nag laaj la boo xam ne du ñëpp xam tontoom la mooy du ñu yem hmm? duñu duñu du ñu yem mooy inkaar la rek loolu moom duñu duñu duñu du ñu yem ki xam ak ki xamul du ñu yem mukk du ñu yem ci ñaari mbir nag mooy du ñu yem ci tuyaaba waaye du ñu yem tamit ci responsabilité Euh, kon ndax nit ki xam ba génn ci ak réer am na loo xam ne sañatu ko mënatu ko kon nag bu fekkee ne defu ko am na responsabilité bu rëy rëy bu gàddu ci boo xamante ne nii gàllu na ci kawam ndax defe naa ne Yonent bi sallallahu wax na ci xadis ne bokk na ci ñett ñi njëkk a séndal ci sawara boroom xam-xam kon euh, kon ku am xam-xam am nga am nga dañuy wax ne xam-xam boobu faw mu nekk lay ci ci ci yow wala ci sa kaw rek maanaam boo ko jëfee mu do mu jural la jàmm waaye boo ko jëfewut it ëllëg yowmal xiyaam danañ la ko laaj kon loolu lu lu mat a bàyyi xel la ni daraja ji kawee it noonu la responsabilité bi kawee loolu ay misaal la rek ci ga yu gàtt ci xam-xam fi ko sunu borom teg ci alxuraan euh, ci xadis bari na lool moom it euh, li ñu ciy tudd rek mooy farata gi nga xam ne ci xadis ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam farataal ko mooy euh, li nga xam ne moom la wax ci ne talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima mooy sàkku xam-xam ci bépp jullit moo xam góor la wala jigéen la doy na rek tamit tuuti ci alxuraan ñu fàttaliku ne aaya bi njëkk wàcc ci alxuraan waaye aayat yi njëkk wàcc muy xam su aayat yi nekk ci suratul alaq loolu day day dafay jàngale importance yu jàng tamit ndax aadama buñ fàtte ne ci aay bu njëkk bi njëkk a wax wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla bi mu bindee aadama daf koo jàngal waaye tamit yonent bi sallallahu alayhi wa euh, biñ ko yónnee fi njëkk a jaar ak moom mooy dañ koo jàngal te juhdu boobu muy fo effort boobu mënoon na ko cee bañ a fekk waaye lu mu gàtt gàtt xaw nañ koo sonnal ci am njàng mooy ba Jibril ñëwee te fekk ko ci xuntuma ba bokk ko bokk mbooma ba ba ba ba foofee dana ko iqra jàngal kon loolu ñun jullit ñi daf ci wan importance su jàng waaye ak importance su xam-xam tamit yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis tamit ne képp koo xam ne soobu na yoonu sàkku xam-xam sunu borom dana ko yombalal yoonu àjjana kon dafa mel ni xam-xam yoon la ci yoon yi jëm ci àjjana kon Eh, loolu yonent bi sallallahu alayhi wax na ko man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na it ci ne malaake yi ci boppam dañuy wàcce seeni laaf ngir wormaal ki nga xam ne day sàkku xam-xam di ko di ko wormaal waaye di ko ñaanal te ñaanuk malaa'ika njëggal la boo xam ne mooy sàkku njëggal ci nit ki koy def jéggal jéggalu sunu borom kon malaaka yi dañuy jéggalul ki nga xamante ni nii daa jaar ci yoonu sàkku xam-xam te loolu kon sharaf la ci ki nga xam ne képp ko sóobu ci sàkku xam-xam te xam-xam xam boobu it danañ ci wax wax dëgg yàlla ndax eh, danañ wax ci eh, waaye loolu waxtaanu boppam la mooy yan façon xam wala ban façon xam-xam ndax xam ñu boobu ba léegi ñu ngi tudd baatu xam-xam waaye nag du xam-xam yépp hmm, du du xam-xam yépp waxoon nañ ci waxtaan wi ñu njëkk a wax mooy al sidqu wal ixlaas fi talabil ilm loolu nag lu am solo la charte la ci ci dara ci ci ci sharaf bii may wax lépp pour nga man koo am muy dayo ji ak daraja yi euh, day fekk ne it ban xam-xam la ñuy wax ak lan ak lan moo tax ngay sàkku xam-xam boobu waaye loolu bu soobee yàlla incha allah danañ ci ñëw kon yonent bi sallallahu alayhi wax na ne yoonu sàkku xam-xam Euh, ku ci soobu yàlla dana la yombalal yoonu àjjana te loolu it manees na ko leeral leeral bu leer ndax xam-xam rek moo lay xamal sa borom waaye loolu danañ ci ñëw te ko xam sa boroom danga danga def ay ndigalam bàyyi ay tereem te boobaa it euh, da danga da jaar ci danga jaar ci yoonu àjjana wax dëgg yàlla euh, malaake yi dañuy jéggalul ki nga xam ne day sàkku xam-xam waaye ba sax jën yi yi nekk ci géej gi ak ñi nekk ci jéeri ji ñoom it dañuy jéggalul ki nga xam ne day day sàkku xam-xam li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci ci ci ci ci ci dayop sàkku xam-xam ni ak ci xam-xam leneen li mooy euh, ñu xam ne sàkku xam-xam ci boppam nga xam ne istiqra la wala istinbaat la tadabbur moo koy indi ak tafakkur ak qiraatu nusuus fexe ba di jàng aay yi di ko di ko xam di ko càmbar xam nañ ne xam-xam bi suñ borom di wax muy xam-xam buy jariñ képp ku ca sóobu ba am ko xam-xam ci boppam mooy tax nit xam euh, euh, ay defoom ay mooy tax nga xam sa bopp euh, am sàkku xam-xam mooy tax nit ki xam boppam xam li ko fi indi xam mooy kan te dañoo wax ne képp ku xam boppam dana dana dana xam boroomam man arifa nafsahu arifa rabbahu ku xam boppam rek dana dana dana xam boromam te xam sa bopp mooy nga xam ne jaam nga te ab jaam day am sang te dañ koy topp kon loolu noonu lañ lañ lañ koy tekkee ku xam sa bopp da nga xam sa boroom te boo xamee sa bopp da nga xam ne ab jaam nga te ab jaam day am boroom te sa boroom da nga koy topp kon wax ji leer na nañ mooy da nga xam yàlla te boo xamee yàlla da nga xam ne moo la bind da nga xam ne mooy sa buur te loolu defe naa mooy laa ilaha illallah kon dellu siwaat ci xam faalam annahu laa ilaha illallah loolu lay tekk nga xam sa place waaye jël tamit sa buur teg ko palaasam bu ko defee nga topp ko ndax reconnaître am ak sunu borom gi ak nguuram yastalzimu da lay dal faaw loolu dafay wundu tamit nga nga nga nga topp ko loolu mooy tawxidul rububiya ak tawxidul uluhiya mooy ginnaaw boo nangoo am ak sun borom gi ba noppi xam ne moo la moom moo la bind ah léegi nag kon moom nga war a topp waaye waru topp keneen mooy nga nangul ko mooy euh, tamit al islam mooy al mooy istislaam euh, leneen li mooy xam sunu borom muy xam-xamu lislaam muy iqra bismi rabbik moom ci la njariñi àdduna yëpp yëpp yëpp yëpp nekk nit ku xam yàlla rek xam-xam boobu lay jëme ci xam suñu borom moo lay dajaleel njariñu xam-xam yëpp yeneen yoo mën a tudd kon lépp mu ngi tàmbalee ci xam sa xam sa borom ba noppi waaye tamit réere sunu borom daanaka moo dajale tamit Euh, lor yi yi yiy dal doomu adama lépp lépp lépp ci ñàkk xam moo moo moo moo ko teg moo ko ko teg ndax nit ñi moom ñett rek ñett rek lañ ñett lañ mooy ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy ñi nga xamante ni nii ñu ngi topp yàlla te xam ko ñun fatiha dafa dajale lu bare bare bari daanaka booy xool alxuraan lépp lépp lépp mu ngi ci mu ngi mu ngi ci biir mu ngi ci biir fatiha boo xoolee iya ahlu iyaaka naabudu wa iyaaka nastain li tax ñi mën a ñi mën a nangul sunu borom ba topp ko mooy que dañoo jaar ci yoonu xam-xam mooy mooy ihdina siraatal mustaqim dañoo am hidaaya te hidaaya moom ilmu moom moo koy joxe mooy nga nga nga nga am xam-xam euh, xam nooy toppe yàlla ba pare nangul ko tamit boo jaaree ci siraatal mustaqim moo tax saa su nekk dañuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala di ñaan mu di ñu giide mu di ñu gindi ba ñu jaar ci siraatal mustaqim te loolu kon mooy mu moom mooy ni'ma an allazi an allazi an'amta alayhim gis nga yaa ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ndax siraatal mustaqim moom mooy li nga xam ne mooy indi tamit ni'matu dunya wal axira kon xaaj bu njëkk bi nga xam ne ñooy ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy manazil yii nga xamante ni ibnul Qayyim wax na ko ci téeram bu am solo boobu muy madaariju saalikin falay leeralee manazilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te bu nu ko waxtu wi mayoon danañ ci waxtaan lu baree bare bari waaye ci leer gàttal rek ci ñett yi dañoo masa dañoo mat a xàmmee lool muy muy muy xam-xam bi bi nga xam ne moo lay xamal sa borom nga xam ne ca ngay xamee sa bopp xame ca sa borom ñooña ñooy waa ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te dimbali gi leen sunu borom dimbali ci ñaan gu ñuy ñaan tamit ak nangoo sóobu ca yoon muy ihdina siraatal mu al al hidaaya nga xam ne buñ ko amee rek mën a sóobu ca yoon woowa beneen bi mooy ñi nga xamante ni nii dañoo réer muy ahlu dalaal te te dalal li koy indi moom mooy moom mooy jax la kon euh, ahlu dalaal xayril maxdubi alayhim wala dallin ba nii ñaan sunu borom mu dimbali ñu ba ñu sóobu ci siraatul mustaqim sunu borom dafa seppi ñaar ci biir ñaan gi ne xayril maxdubi alayhim wala dallin al maxdubi alayhim mooy ñi nga xamante ne nii danoo xam ba noppi waaye ittabaaw la al kon nit ki faaw imma day xam jaar ci yoon wa ne ca coow wala mu ñàkk xam wala mu xam ba noppi lànk ñett yi rek a fi nekk ci àdduna yépp mooy ñett yi ma lay wax ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy ñi xam ba noppi daal di jaar ci yoon wi nangoo topp ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne dañoo réere yoon wi nga xam ne dañoo dañoo réer te bañu mooy ndax ba ba ñu gëlëmee xamuñu yoon wi jël dab leen booba lañ dugg ci dalaal ñeneen ñi mooy dañoo xam ba noppi daal di lànk li zalika istaxaqu alxadab ñu daal di yàlla daal di leen di mere euh, ñooñe nag mooy ñi nga xam dañoo topp seen bànneexu bakken ndax ku xam ba noppi lank wala nga topp sa bànneexu bakken kooka moom wa jaxadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa ittabau ahwaahum ñooñu ñooy ñi nga xam dañoo topp seen seen seen kon ci xam xam-xam dafay dimbali nit ki mu xam boppam waaye mu sóobu ci ci yoon wi nga xam ne moom la sunu borom bëgg bokk na ci njariñi xam-xam it euh, mooy àdduna bi ñu nekk euh, ngir ñu man fee nekk ba man fee jaamu yàlla euh, nga xam ni mooy li ñu fi indi faw ñu faw ñu jàng faw ñu xam li fi nekk lu mu ba li yàlla dëxëñ ci biir suuf si ci jamono ci ci àdduna bi ñu nekk ñu mën koo jëfandikoo ngën ngaa jëfandikoo ci ci waaye bu ko te loolu yastalzimul ilm wal maarifa moo tax jàng mënta ñàkk pour nga xam euh, naka ngay dundee ci kaw suuf te loolu shahid bi ñëw na ci alquran huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha te euh, yàlla moo leen indi ci kaw suuf waaye tamit ngir ngeen tabax suuf si ngir ngeen dundal ko ndax nekk bi ngeen fee nekk di ngeen woo sol yëre di ngeen aajowoo lekk da ngeen aajowoo euh, euh, faju bu ngeen feebaree da ngeen woo ay kër yu ngeen dëkk euh, protéger seen bopp ci sedd bi ak tàngoor bi ak yooyu yëpp ak yeneen yu mën a indi da ngeen woo déplacement jóge fenn dem feneen ak ak ak ak lu bare bari loo xam ne ñun ñëpp xam nañu ko te loolu bu ngeen xoolee bi àdduna tàmbalee ba léegi li fi nekk ci kaw suuf lépp yàlla bind ko fi waaye ñun sunuy loxo jógu ci ñun ñoo ko defar yàlla moo ñu may xel ñu mën koo defar ba man koo jariñoo euh, te loolu li ko indi mooy que mooy mooy nangoo sàkku xam-xam ndax yàlla moo bind asamaan ak suuf ak li fi nekk ci diggante bi tàggatal ñu ko tamit ba nga xam ne mën nañ koo mën nañ koo jariñoo ñun binduñu dara ndax kiy bind moom moom mooy yàlla waaye xel mim ñu jox tax na li nga xam ne moom la ñu bindal ñu mën koo soppi ba mu déggoo ak li nga xam ne ñun noonu lañ ko bëggee loolu xam-xam rek moom moom moo koy moom moo koy def beneen bi muy lu am solo mooy doomu aadama euh, dafa nekk ci ni ko suñ borom bindee dafa am ay nawaasiyan yu baree bari bari yoo xam ni dañ daf koy xëccoo muy bànneexu bakkenam seytaane àdduna yu baree bare ngi fi yoo xam ne euh, dafay dafa da koy da xëccoo moom moom moom doomu aadama nga xam ne yooyu yëpp mën na koo topp ak euh, doomu aadama su amee dafay dafay bew euh, yooyu yooyu yëpp xam nañ ko ci alxuraan euh, te kon li ma bëgg a wax foofu mooy li ñuy tuddee liberté dëgg-dëgg moo xam liberté xel la liberté buum te liberté xel dëgg-dëgg moom mooy liberté ndax ñu coloniser sa yaram nii wala ñu tëj la wala yu mel noonu loolu mën naa am waaye Euh, nit ki bu ñu xasee euh, euh, coloniser xelam maanaam ba moom ko ci xelam maanaam moom lañ ko lépp te loolu moom moom moo gën a danger te liy jox nit liberté ba kenn du mën a moom xelam kenn du ko moom mooy mooy mooy xam-xam nit soo ko jàngalee rek jox nga ko liberté parce que dina xam yoon bi mu mën a jaar dana xam li bëgg dana dana xam li nga xam ne moom la bañ mais nit koo xamante ni nii jàngaloo ko euh, dafay neex a coloniser euh, dafay neex a wommat tamit te defe naa ne loolu euh, expérience ware na ko réew yu bare bari yi nga xam ne dañoo coloniser ay yeneen réew liñ leen coloniser du ëpp leen àddat ndax pour nga ëpp nit ki sax udda li ñuy tuddee ay ay matériel ëpp ko ngànnaay yooyu day fekk nga ëpp ko xam-xam ndax ci xam-xam bi nga ko ëpple moo tax nga ëpple ko ay ay ay ngànnaay ba tax nga mën koo coloniser te ëpp ëppale nit ki ngànnaay tamit taxut nga mën koo rey ba jeexal ko ba faagaagal ko ndax am na réew yu bari yoo xamante ne nii coloniser lañ leen ñëw jël seeni xayraat yu baree bare bari te bal fa li tax mooy dañoo njëkk ci seeni xel dañoo njëkk ci seeni xel jàngal leen seen façon boo xamante ni ci lañ leen di noote kon euh, li may wax defe naa ne xam ngeen ko bu baax a baax a baax mooy que xam-xam boo ko utiliser rek mën nga dem ba moom nit ki ba di ko def looloo xamante ne nii fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu jëm yaa ko fa yóbbu te loolu ñun ñëpp xam nañ ne euh, média bii ñu nekk tey euh, ci ci àdduna bii ñu nekk laay wax ni ñu utiliser média ci coloniser xelu nit ñi ba lu ñu leen wax ñu gëm ko ba euh, information ci boppam ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu moomee doomu aadama ñi nga xam ne toujours yow nit ñi Euh, dañ leen di def comme ay xar maanaam noonu laa la mën a def ànd ànd ñoog seen sago ndax luñ xam euh, ñi yor média yi ñoo leen ko xamal euh, ñoo leen di wommat ñoo leen di gëmloo nga xam nit ki nit ki tey ni mu mel ak ni muy xalaateeg lépp lépp ay nit ñoo ko fabriqué calculer ko ba ba même li ngay jënd sax da nga dem nga ba amatoo choix parce que li ngay jënd mooy li nekk ci marché bi kon yow li nekk ci marché bi presque dañ laa forcé pour nga jënd ko loolu moom mooy marketing da nga gis nit ki dem ba jënd loo xam ne bëgg ko woon a jënd waaye nañ ko ko wanee ak nañ ko ko tegalee ca ca ca bitig ba moo koy tii moo koy attiré ba bam ba mu dem jënd ko ñi ñiy consommer xam nañ loolu fii Europe gii ñu nekk tey euh, consommation bokk na ci li gën a li li li gën a sonal nit ñi am na si ñoo ñu bari ñoo xam ne dañoo yor ay bor te li ko waral mooy mooy yeewuwuñ ci yeewu yeewuwuñ ci yow nit ki du du xool lan la soxla mais day dem rek gis dara euh, nañ ko defaree yéem ko mu rafet loolu ci bëtam mu defee ni lii daf ko soxla ba dem jënd ko euh, même bu mënta jënd dana dem lépp jënd ko loolu lépp ci façon xam-xam moo koy def waaye moo tax xam it ñaari paaka ñaari boor la mën nga cee jublu lu baax waaye mën nga cee tamit lor nit moo tax nit ki mm, am conscience ci dundam mën ko téel boppam lu am solo la te loolu xam-xam rek moom moom moo koy def xam-xam daal mooy libéré nit ci ci ci ci igno ci ignorance ci ñàkk xam moo koy libere tamit ci rëy ndax nit ki bu amee te xamul euh, mën naa def jéeya waaye moo koy libere tamit ci ci ci wàcce sa bopp wala ci toroxtaange ndax nit ki bu xamul dana dem sukk ci kum warta sukk di sàkku ca moom euh, mbiri àdduna loo xamante ne waru kaa waru kaa sàkkoo noonu ndax ki ñu war a torox ci ci moom rek mooy yàlla waaye nangu doyadil sa bopp ak tuutal sa bopp Euh, loolu nit ki xamul boppam rek a koy def te àdduna jërul loolu moo tax euh, ignorance muy ñàkk xam euh, mooy indi bépp mooy indil doomu aadama bépp coono yi àdduna mooy mooy mooy noon noon noon bi nga xam ne daal moom moo gën a rëy ci doomu aadama mooy mooy ñàkk xam beneen bi mooy mooy mooy topp topp goo xam ne tegoo ko ci fenn maanaam làmbatu Euh, ñàkk xam dana indi làmbatu ak ak taatul umya al mooy di làmbatu rek li ngay li ngay def tegoo ko fenn euh, koo gis muy dem rek nga topp ci ginnaawam roy ko euh, te na ma yàlla baal waaye ñun su su suñu dëkk yi ba ci suñu njiiti réew yi ak ñenn ci yenn borom xam-xam yi sax dañ koy dañ ko dañ koy def dañ koy def lu bari gis ay au lieu nga nga jàng indépendant xam li nga am déparé ci say source déparé ci sa histoire déparé ci sa bopp waaye da ngay jéggaani dem di def di toppandoo ay nit yoo xam ne wuute ngeen bokku leen démb bokk leen tey waaye bokk leen tamit mustaqbal nga nga nga nga topp leen lu ñu wax nga wax ko lu ñu def nga def ko te loolu alquran xazarana minha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtaduun loolu yàlla nañ fi yàlla musal muy ataatul ambiya manhaj boobu moom manhaj fashil la mooy kii bu bon a bon la boo xam ne gis dara rek rek rek rek topp ko noonu te te te te xamoo ko alxuraan day wax saa su nekk xul haatu burhanakum in kuntum saadiqin booy def dara toujours na nga ko yër na nga ko argumenté na ut ay lay na na nga xam foo koy teg waaye tëb noonu rek di topp moom loolu loolu baaxul beneen bi mooy ci ci wàllu njariñu xam-xam ba léegi mooy xam-xam daf lay dafa day day day indil nit ki Euh, bonheur u àdduna ak alaxira mooy mooy ndax ndax nit koo nit ku xam boppam rek dana xam lan la war a def ak lu mu war a def boo gisee lu lay jariñ da nga ca da danga da nga ca dugg waaye boo gisee lu lay lorit di di di nga di nga ko jéem a moytu te loolu lu lu lu lu am solo la ndax bari na ci nit lu koy lor te ñàkk ko xam wala ñàkk moom moo moo ko ko yóbbee. man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama ba aaya ba jeex loolu ñàkk a xam njubug suñ borom gi wala xam ko ba noppi te toppoo ko moom mooy waral tamit nga am dund goo xam ne dund gu nëx a nëx a nëx la te yàlla waxaat ne beneen beneen aaya ci alxuraan di di wax ne man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayaatan tayiba la nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun te alxayaatu tayiba moom moom toujours mu ngi mu ngi tàmbalee ci ci ci ci ñaar yi li koy indi mooy al iman wala amalu saalix loolu pour nga def ko man koo am teg ko ni nga xam ne pour pour nga dugg ci ñaar yooyu il faut nga jaar ci buntu xam-xam kon nga gis ne saada mul xayaatu tayiba fii ci àdduna rek laay wax ndax aaya bi ci àdduna lay wax ba noppi laata muy wax ne wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaamaluun nga xam ne loolu àllaaxira la jëm waaye fii ci àdduna bonheuru àdduna pour nga am ko dëgg-dëgg sax il faut nga il faut nga am xam-xam kon loolu euh, il faut ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci euh, bu ñuy sàkku xam-xam waaye lii lii lépp nag li tax ma koy wax rek daf ñoo war a motiver ci ci ci ci ci ci xamlu sax sax ci xamlu ndax looy gën di xam muy gën a neex mais ngay gën a am liberté tamit ngay gën a am liberté ci ci ci ci àdduna liberté nag li ma ci jublu du génn nguuru su sunu borom gi comme comme comme ni ko européen di di di di ñu ëpp ci ñi nga xam ne ay ay ilmaani yoon lañ ay ate lañ gëmuñu yàlla defe ne lépp mën nañ mën nañ ko yoral seen bopp lépp mën nañ ko mën nañ ko lijjanti loolu loolu waxuma ko ak ak ak ak lu la neex def deret loolu loolu loolu loolu jubluwuma ko ci li ma jublu ci liberté mooy taxarul min al quyut wa min al ahwa loolu mooy nga nit ki am liberté ci ci ci ci ci ay bànneex ndax am na ci ñoo xam ne eh, li ñuy wax rek boo boo nangulul yàlla nangu nanguwoo nekk jaamub yàlla faaw la nga nekk jaamub jaamub jaamub leneen te li gën a metti mooy nekk jaamub loo xam ne dañ koo bind ndax ki war a bind ki bind rek moom lañu war a jaamu waaye nekk sa nekk sa moo nekk jaamu sa moroomum jaam loolu moom suufe gënu ko gënu ko gënu gënu ko doy waar yàlla nañu yàlla musal loolu te am na ci ñu bare bare bare bare ci àdduna ñoo xam ne euh, jaamu mbindeef lañ maanaam jaamu jaamu yàlla lañ te loolu ëpp na kiñ kiñ kiñ war a nangu mu nekk suñu kilifa nekk sunu buur moom dong mooy yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne moom moo bind kon loolu lu am solo la beneen bi nga xam ne dam euh, bëgg naa ko ci yokk tamit mooy lépp luy dox ci àdduna lépp luy dox lu am succès euh, am résultat euh, loolu faw mu mu mu mu mu faw faw mu jaar ci bunt xam-xam waaw maanaam loolu ginnaaw ndogalu suñu borom nag ginnaaw ndogalu suñu borom ndax so suñu borom muy tënk lépp waaye ginnaaw ndogalu suñu borom moom mépp mbir moo xamante ne nii nar naa am succès euh, muy muy najaax faaw mu mu jaar ci xam-xam euh, ak tamit responsabilité wala wala maandute li tax ma wax loola mooy booy jàng suratu Yusuf ba yegg si ci ba mu ñëwee Égypte bala am am euh, ba buur ba woolu ko ban ko bëggee jox ab poste euh, buur bi mu jege buur bi ngir toog fa di liggéey dafa am lu am solo loo xam ne yàlla da ko nett li ne wax ko ci làmmiñam mooy ij'alni ala xazaa'inil ard inni xafizun alim euh, maanaam li ñuy tuddee daanaka mën naa ne ci jamono ji tey mooy ministre de l' économie ñu jox ko ko jox ma ma ma yor lu jëm ci wàllu dund gi ndax dama am ñaari jikko yoo xam ne ñaari jikko yooyu damaa gis ne ci lépp lu mu nekk lépp lu mu nekk rek loola dafay jëm kanam waaye loola tamit dafay dox muy inni xafizun alim al al ilm muy compétence nit ki am compétence am xam-xam ci li muy def ba noppi wóor luñ ko dénk mu sàmm ko loo ñaari jikko yi fépp fu mu daje incha allah ci organisation ci lépp looy mën di taxawal bu fa doxee bu bu ci bu ci amee rek euh, loola mën nañ caa am yaakaar ne incha allah dana am ay résultats yu yu baax waaye fépp fu mu manqué tamit loo jéem jéem jéem ci fachal ak ci échec ci ngay mujj ndax boo amee xam-xam te wóoroo it loo jàmbaare jàmbaare jàmbaare ci def boo noppee doo ko sàmm waaye da nga ko di nga xañ nit ñi seen ak te loolu ñun xam nañ ci dara ñun ñun Afrique yi ndax suñuy njiit euh, li ñu tuddee masuliya muy muy muy responsabilité xamuñu ko xamuñu ko ñu ci baree bari la ñuy fooy réew mi wala ñu jiital seen intérêt ci intérêt réew mi euh, te loolu ku am masuliya du ko du ko def euh, imma wala tamit seen njàng demewut noonu xamuñu ndax ñoom li ñu leen di jàngal rek mooy nu ñuy fexe ba nax nit waaye nu ñuy fexe ba tabax am réew ba ñëpp yam ñëpp jël seeni àq loolu moom dafa naa ne jàngaluñu leen ko moom waaye amaa nu ñuy fexe nag ba ba ba feesal seeni poos ba nax nit ñi jariñoo leen loolu moom xëy na xarañ nañ ci bu baax a baax a baax wallahul mustaan waalay tukkulaan beneen bi mooy mooy te te te te masuliya dafa dafa dafa am solo lool lool lool xam ko ndax coonam doomu aadama lépp li ko li ko indi am na sax benn misaal benn benn benn aaya boo xam ne mën nañ caa tegtaloo rek ci xuturatul jahl wa adamul maarifatul masuliya mooy in mooy aay bi yàlla di wax ci alquran inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kana zaluman jahula azulmu wal jahl azulmu yatawalladu minhu uh, adamu shuur bil masuliya mooy li ko li koy indi rek mooy mooy mooy loolu nit ki daanaka saa su dëngalee wala mu tooñ rek xamal ne xamul responsabilité am dëgg dëgg dëgg beneen bi mooy mu mu ñàkk koo xam kon lépp dafay delluwaat ci ci ci ñàkk xam boobu ma la ma ma la ma ma ma leen wax kon loolu moom euh, mooy moo ci nekk euh, li nga xam ne moom laay mujje ndax mu ngi xaw a bëgg a gudd euh, mooy <coughs> nit ngir mu nekk nit il faut ñu yar ko il faut ñu jàngal ko illaa bu ba bàyyi ma rek moom lay doon nit ku nit nit nit koo xam ne dafa civilisé mooy nit ku ñu yar koo xam ne day day xam ay droit am euh, mais xay xam tamit ay devoir am moo tax société pour nga pour pour nga pour nga pour nga noppalu pour pour nga pour ñu jëm ci kanam il faut ñu il faut ñu jàngal leen yar leen euh, moo tax waa ji doon wax naan rabbu banaatikum allimuhum hazimu fityaanakum fal ilmu xayru xiwaam wal ilmu maalul mu'damina isa hum xaraju min ad dunia bi xayri xutaamin defe naa ñun ñu ñun ñuy jàng ñëpp eh, yenn tilaawa yi biñ nekkee gone eh, ci Sénégal daan nañ jàng yu mel noonu mooy tilaawatul lool arabi yooyu nga xam ne daan na yi daan jógee Maroc eh, yooyu bayit yu mel noonu ñanga nga ci woon donte xam naa ne njàngum gone la ñu ñu ñu ko ñu koy fàttaliku ba léegi waaye yar yar nit ñi ak yar leen ci xam-xam mooy tax nga def nit nit ki ba mu xam ay droit am xam ni mu koy sàkkoo ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak xam-xam teey te loolu foofu ci côté boobu <laughs> européens yi raw nañ ñu ci lool raw nañ ñu ci lool eh, ndax ñoom seen mbir mi àdduna da leen a ñor lool lool lool ba tax na lépp lu mu laaj danañ ko ci def ngir ngir ngir ngir ni ni ni leen seen mbir àdduna ñoree bu leen ko si buñ xamoon mbirum suñu borom ba ba ba xam àllaaxira kon ñoom danañu jiitu fii jiituñu fële ndax dafa mel ni seen mbir yépp dañ ko dañ ko dañ ko dañ koo teg ci xam-xam waaye nag li leen ñor moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci mooy seen àdduna ji leen ñor tabax nañ ko tabax boo xam ne euh, macha allah donte nag du am barke te duñ jóg ci ay ay ay tolof tolof ndax euh, moom yàlla li mu wax du dañ mooy man wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka maishatan danka moom mooy mooy ndax loo am am am ay ci ci wàllu xéewal yi ci àdduna nii nii matériel te amoo leerug sunu borom ki nga xam ne moom la roogi soxla boobu baa doo doo doo jóg ci xol bu xol xol bu diis euh, ak ak ak ak jaaxleeg àdduna euh, yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum anil axirati hum xaafiluun loolu loolu loolu moo leen dal Eh, ak yuridu man kaana yuridul ajilata ajjalnaa lahu fiha ma nashaa liman nurid eh, aaya yooyu yëpp yantabiqu alayhim loolu loolu lépp dafay dafay dal ci seen kaw waaye ala kulli xaal eh, nit daal pour mu nite moom faaw ñu jàngal ko faaw ñu yar ko bu ko defee bu amee du bew te du yàq te dina dina nekk ci li ko li nga xam ne moo ko war waaye réew yi nga xamante ni nii ñoo gën a néew doole ci wàllu yar ak jàngale <laughs> ñoo ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy gën a sonn ci wàllu gépp ñooy gën a sonn ci wàllu gépp euh, bari na lu ñuy gis tey ci sunu réew yi ñu mu di fa am te daawu fa am te li li ko waraloon mooy yar ak jàngale dafa manqué lool waaw dafa manqué lool nit ñi bu ñu leen yarul jàngale leen jikko yi bàyyi ma moom la ñuy doon bu boobaa it dund bàyyi ma la ñuy la ñuy la ñuy la kii bàyyi ma sax leen tane ndax bàyyi ma. am na lu muy def loo xamante ne nii euh, yàlla da ko ko bindee muy choix la boo xamante kii euh, euh, benn xarisa la boo xam ne bu koy def am na lu tax mu koy def kese waaye du du ngir yàq ñu ci bari bu ñuy rey wala ñuy fàdd dañ koy def ngir ngir mën a lekk ngir ngir mën a continuer di dund waaye doomu aadama moom ngay gis mu jàkkaarloo ak moroomam rey ko te dara warul lu dul da ko iñaane wala mu soxore ko wala wala wala mu topp xolam wala meram wala yu mel noonu yoo xam ne moom mari day taal loolu nag ñàkk xam rek rek moom ma koy def euh, moom daal xam-xam ngi noonu leer la goo xam ne ku ko am euh, da ko mën a niitoo danga ko mën a jariñoo euh, xam-xam mooy li nga xam ne moo lay moo lay sàmm alal nag moom lu mu baax baax lu mu bari bari yow yaa sàmm boo ko waaye xam-xam moom moom moom dalay sàmm kon dafa mel ni xam-xam moo gën alal ñaareel ba mooy alal wax nañ ne boo koy dépassé day dafay manqué looy koy gën di génn di joxe muy gën di manqué te xam-xam mooy loo xam ne loo koy gën di joxe it boo ko amee ba noppi loo ci gën di joxe muy muy gën di sakkan di di di di di gën a bari di gën a barkeel rawatina nag boo koy boo koy jëfee euh, beneen bi mooy xam-xam euh, alal dafay fii lay des ak lu bari bari bari doo ko doo ko yóbbaale yomal xiyaam te bu dee xam-xam ala kulli xaal euh, dafay dafay ànd ak yow euh, ba yowmal xiyaam moo tax euh, sëñ bi sëñ Tuubaa da doon wax naan xam-xam ñaar la dafa wax ne al ilmu xismaani ilmun yanfauka fi daarayni mooy xam-xam boo xam ne dalay jariñ ci àdduna ak alaxira ban xam-xam la mooy xam-xam bi nga xam ne li nga xam ci lu baax te jëfe ko Eh, ak li nga xam ne xam nga ko ci lu bon te bàyyi ko nee na te loolu nee na xam-xam boobu nee na bu nit ki génnee àdduna xam-xam boobu moom lay yóbbaale moo koy mooy mooy ànd ak moom eh, ba yomal xiyaam nee na la nga xamoon ca lu baax te di ko jëfe nee loola moo lay dugal àjjana te loolu am na ay shawahid yu bare bari ci alxuraan eh, dugg dugg leen àjjana malaaka yi dugg leen àjjana ci ci sababu li ngeen doon xam ni moom ngeen doon jëf Euh, li nga xam ne moom nga xamoon ci lu bon te bàyyi ko euh, nee na loola moo lay moo lay musal ci sawara euh, te loolu kon ñëpp xam nañ ko muy te loolu moom mooy lislaam mooy ibaada lépp mu ngi sukk mu ngi mu ngi mu ngi dellu ci ñaari asli yi mooy ittibaaul awamir ak ijtinaabul nawaahi yi muy jëfe ndigal yi te bàyyi tere yi te loolu pour nga def ko mooy ko il faut nga nga teg ko ci xam-xam mooy tax xam-xam bi lay xamal nooy toppe yàlla euh, ba def lim bëgg bàyyi lim tere nee na xam-xam boobu mooy xam-xam bi lay jëriñ àdduna ak àllaaxira amma xam àdduna kese kese nag moom moom moom xam boobu moom fii lay yam ak lu mu bari bari ak lu mu baax baax euh, loolu kon euh, nit kuy sàkku xam-xam war na xalaat bu baax a baax li muy sàkku Euh, mu mu mu jëmmi yàlla tax waaye tamit euh, àllaaxira tax ndax euh, wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa nan ut yóbbal te yóbbal bi gën mooy ragal yàlla mooy xam yàlla xam nooy toppe yàlla xam nooy defee ay ndigalam ak nooy bàyyee ay tereem moo tax te lii tax ñuy jàng yit comme ni ma ko waxee mooy boo boo xamee sa bopp da nga xam yàlla Euh, dafa am ñett yoo xam ne dañ koy dañ koy wax ci ci borom xam-xam yi te mu tasawuf yi nii dañ koy wax te te xam-xamu tasawuf bu ma ko waxee euh, du rek lii ñuy lii lii ñuy gis ci téere yi wala ñenn ñi di ko def muy daanaka lii nga xam ne shirk lañ koy tuddee di bokkaale suñu borom ci euh, ñi nit ñu nit ñu baree bari ci sama mbokk yi ñiy jàng dañuy dañuy féetale tasawuf di leen xas waa ahlu tasawuf Eh, ci yenn yi ñuy def waaye loolu du xaqiqatu tasawuf eh, ndax eh, tasawuf mooy mooy mooy sellal rek mooy sellal si diggante ak sa borom te loolu asl la bal bal bal huwa mana mooy mooy kiiwul islaam mooy mooy xaqiqatul islaam moom moom mooy ihsaan rek mooy an an taabudullah ka annaka tara fa in lam takun dara fa innahu yara maanaam mooy li nga xam ne al muslihu lil axwaal comme ni ko sëñ Tuubaa waxee ndax ndax mooy li nga xam ne moom mooy defar nit ndax yeneen yépp ay kii la rek dañoo xam ne al ilmu naafi tuarifuka uyuba nafsik wal amalu saalih yaquuduka ila allah al al al amalu saalih waaye wala wala walakin al al adabul mardi mooy teggin sa diggante ak sa borom hu yuusiluka ila allah subhanahu wa taala li lay yeggale ci yàlla dëgg moom moom moom jikko lay doon moom jikko ak ak tegginu ak ak sa borom waaw kon te loolu liñ ci mën a wax bari na lool lool lool Euh, liñ ci ma liñ ci ma ashukuru wa sabru ak rida euh, yooyu yëpp ay ay mbir la yoo xamante ne nii dafay yàggale nekk ci ci suñu borom kon daal euh, dafa mel ni <coughs> waxtaan wi gudd na waaye nag liñ ci jublu woon rek mooy dimbalante ak soññante ci lu baax ñu ngi yamale fii waxtaan wi tey ñaam suñu borom njëggal ci njuumte yi Euh, te xam ne lu baax lañ ci jublu woon ñu ngi leen di jéggalu it yéen ñi nga xam ne yéen ko yéen koy dégg bu fekkee am nañ ci yenn euh, njuumte waaye tamit saa su nekk di ñaan képp koo xam ne dégg na wax ci euh, te am lum ca mën a jubbante it mën nañu caa baaxe bu ëllëgee ñu gën a gën a lu a gën a bàyyi xel waaye lañ ci jublu rek mooy sàkku ngërmul suñu borom ak laabirante ci ci lu baax <coughs> yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla defal yiw ci lii ñun ñëpp ñu ñi ko wax ñu koy déglu ñëpp incha allah ba ñu tasee ci ak ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu